gannaaw lii nga xam ne moom moo fi xew tey muy euh, final bi yàlla sottee ba si jàmm. alhamdulilah wasalaatu maa ngi sant ñëpp di ndokkeel ñëpp tamit ci njeexitalu weeru koor wi di ñaan yàlla mu may ñu koor gu ñu nangu di wax ne lañ doon amal joxe prix neuvième édition bu. prix Cheikh Ibrahim international pour le Saint Coran nga xamne ñu ko tuddé suñu sëriñ suñu wajur al khalifa Mawlana Seydi Ali Cissé radiallahu an alhamdulilahi niñ ko gisé ñun ñëpp mbooleem kilifaay dëkk bi téw nañ khadimul umma cheikh Mouhamad al Mahi ibn Cheikh Ibrahim Niass al imam al muwaqqar Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé ak alxalifa cheikh Mouhamed Sanusi Lamidi Sanusi bi nga xam ne mooy xalifa cheikh Ibrahim Niass ci Nigeria ak muqaddam yu bëri yu jugee ci barab yu fasantikoo ci Mauritanie ak yeneen nationalité yu jugee Nigéria Niger ak ci réew yu bëri ci sous région bi waaye tamit ministre bi nga xam ne moom la Macky Sall dénk wàllu daara yi di madame Mbacke Awa Diop teew na ak monsieur le maire sëriñ Mboub délégation bi nga xam ne moo représenté Pape bi tey ak Chérif Cheikh Omar Aydara ibn Cheikh Matijani radiallahu anhu ak ay personnalité yu bëree bëri njaboot ci Maam Alaaji Abdoulaye Niass njaboot ci Cheikh l'Islam Cheikh Ibrahim Niass waa Médina waa Sénégal ñëpp teew nañ ci prix bii nii nga xam ne tey lañ doon darajaal xale yi nga xam ne ñoo jël pee ci prix Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu prix bii dañoo ne ñi nga xam ne ñoo ci raw dañ leen di jox tafsir Cheikh Ibrahim Niass mooy prime alquran Cheikh Ibrahim ñas yi nga xam ne juróom-benn volume la ci arab ba pare ñu jox leen ko ci kle yoo xam ne bii arab lay làkk beneen bi olof lay làkk ki jël pee am na loolu ñu tegal ko ci 10 millions ki jël 2 am na loolu ñu tegal ko ci 4 millions ki jël 3 am na loolu ñu tegal ko ci 3 millions amna lolu ñu tégal ko ci 2 millions ki jël 5 amna lolu ñu tégal ko ci 1 million kon prix bi mi ngi dox di dem 10 millions yi ni biñ commencé boko divisé par 20 mo nekkon premier prix bi té lolu mo 500000 ci lu matul 10 ans yegna ba ag 10 millions mais premier prix bi 500000 la won kon alhamdullilah rabbil alamin lolu nak dañ ci gëreum kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi te mu tudd leen léegi waaye tamit dañ ci gërëm mbooleem toppam Cheikh Ibrahim Niass yi fu ñu mën di nekk ci Sénégal ci Mauritanie ci Nigéria ci Europe ci Amérique ci àdduna wërngal këpp ndax dañ cee dugal seen loxo ansaaru diin bu New York yónnee na participation bu am solo ci njiital al imam Mouhamad njaay ak ci monsieur Mansour Diassé ansaaru diin bu Canada yónnee na participation bu am solo ci njital Pape Baro ansaruddin bu France yónnee participation bu am solo ci njital souleyman saw ak ci yenen région yi nga xam Cheikh Amadou Fall mu nga fa ak Cheikh Sidaat Ndiaye ñoom ñep def nañ lu am solo ansaruddin bi nek Italie ci njital Modou Diop yónnee nañ lu am solo ansaruddin bi nek euh Espagne yónnee nañ lu am solo ci njital seeni sek ansar din bi nekk Turquie yónnee nañ lu am solo euh, mbooleem ansar din yi ma lim dimbalee nañ prix Cheikh Ibrahim waaye tamit toppam Cheikh Ibrahim mi nga xam ne ñu ngi fii senegal kenn demul ñu des ci Sénégal bu ma naree lim mën naa yaatu lool te duma gënal waaye faw danaa tudd monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam monsieur ministre Serigne Mbaye Thiam mënuñ koo fàtte ndax depuis prix Cheikh Ibrahim départ dafa départ ànd ak moom di ko accompagner teraanga bu nekk indil na ko prix bi ay ordinateur ay million waxtu wu ne mu ngi yónni délégation daaw moom moo teewal boppam ci prix bi kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla mission bi nga xam ne moom la amee yàlla na ko yàlla ooye falal ci moom ndax mission boo xam dafa aju ci nawet la waaye yàlla ko yàlla dimbale ba lépp loo xamante nii bugg na euh, dëggal ko balaa nawet bee am yal na yomb yàlla defal ko ba nga xam ne inondation yi duñ bëri kooku suñu mbokk la doomi dëkk bi la danañ ko sant jagleel ko ngërmaane spécial gërëm tamit ministre euh, Awa Diop mi nga xam ne léegi la fi jógee gërëm monsieur le maire euh, Serigne Mbuub gërëm euh, monsieur le ministre Modou Ndiaye Rahma gërëm Adja Musu Koro ci teraanga yim fi indi gërëm muqaddam yi jugee Mauritanie nga xam ne kenn mënu leen kenn mënu leen livre yi ñu doon joxe muy firi alquran bu Cheikh Ibrahim Niass six volumes kenn ci ñoom moo ko taalif dajale ko ci ay cassette def ko ci ay téere ci lu jege 40 ans waaye ñoom muqaddam yooyu noonu yëpp def nañ ci prix bi somme yu am solo ñoom ñëpp ñu ngi teewoon fii bëgguma lim ngir ragal juum waaye nashkurum gaayat shukr مقدم الشيخ في موريتانيا آه، وعدوا ما عهد الله عليه فتبارك الله جزاهم الله عن الشيخ وعن هذه الجائزة وعن أبناء الشيخ آه، خير الجزاء وحقق الله تبارك وتعالى لهم الأمنيات والأماني وبارك فيهم وبارك في حركاتهم وسكناتهم جميعا لا نستطيع ولا نقدر أن نكافئهم لولا الدعاء لغبنونا لكن بالدعاء إن شاء الله تعالى لا نغبن نشكركم غاية الشكر أحباب الشيخ ومقدميه في جمهورية الإسلامية موريتانيا ولا غروة فهذا الشبل من ذاك الأسد دنا gërëm مولم ñi أو oo ñu uy si Pape Mademba bi tey directeur Senelec tegaat ci yeneen 3 millions dégg ngeen foo Medina Baye li mu def indi 2 millions gis ngeen euh, ñi nga xam ne teew nañ ñoom ñëpp buur bi 5000 euros 5000 euros fa tabarak la macha allah daaw ñëwoon na def lu mel noonu Cheikh Mouhamadou Korachi mi nga xam ne membre la ci lajnal ulia indi 1 million lii yëpp daal buñ ko bëggoon lim fa tabarak la macha allah daanaka. Eh, fajar fi lañuy fekk te mi ngi bëgg a guddi ñu ngi gërëm tamit ansar diin bu Canada. Hmm. ki nga xam ne waaw. waaw prix bi biñ ko ootee bi mu demee ba def deux ans dañ ko def international niñ dañ jugee Mauritanie dañ jugee Mali Nigeria, Cameroun Niger. di participer ci prix Cheikh Ibrahim Alquran Karim waa Gambie mas nañ koo jël waa Mauritanie jël nañ ko ay yoon waa Sénégal ci barab yu fasantikoo Kër Soose euh, Mbàkke euh, jaamal euh, Medina fii ay yoon jël nañ prix bi loolu dañuy wane ne fii macha allah dañoo am ouverture amuñu dara loo xam ne dañ ne fii rek lañ koy émale ndax Cheikh Ibrahim Niass dafa yaatu te képp koo xam ne jugee nga foo mën di jugee boo gañee prix dañ la koy jox alxaaj Malick Ka mii xamuñu ko xamuñ ndeyam xamuñ baayam xamuñu sëriñ daaraam ñëw na jongante ci biir jongante bi mi ngi doon jongante ak ñoo xam ne suñuy doom lañ mu raw leen ñu jël prix bi jox nii la ñuy demee buñ ko jëloon tamit dañ koy jox ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gañ waaye tamit danaa wax ne xale yi Medina Baye macha allah gàcce ngaalaama jël nañu ay prix Cheikh Mahi Touré daaw moo jël prix Sénico moo jël aussi prix Mohamed VI sur 34 pays africains tey jii qualification Sénico bi xale bi ci raw fii ci Sénégal Cheikh Ibrahim Balla tudd doomi Medina gii nii la kon ñu ngi ñu ngi ñi ngi ñi ngi euh, gis suñ bopp ci prix bi ki nga xam ne mooy Moustapha Niang jëloon ko première édition jëloon ko troisième édition kooku tamit nga xam ne prix Cheikh Ibrahim moo ko yóbbu Égypte muy jàng mi ngi jël ay prix yi ci Iran di ko jël ci Maroc di ko jël ci Égypte googu muy jàngee te buñ ne jàng na alquran il faut nañ tuddu Égypte am na Babacar Niang mi nga xam ne tamit euh, avant muy dem Maroc di jàngi moo jëloon deuxième prix ci 2018 wala 2017 amoon ci 2 millions tey université bi muy jàngee ci faculté euh, sharia islamique science islamique concours alquran biñ doon def mom mo fa jël pee image ngi sama téléphone kon alhamdullilah rabbil alamin. ñi ngi sant yalla di gërëm suñu kilifa yi di leen ñaanal tay nak dañoo lancer benen prix parce que faaw ñi nekk di xalaat di jëmmal loo xam ne dafay njëriñ fay jëriñ ba am ñeneen ñoo xamne ne danañ ñëw pour roy njëriñ googu non tay lancer nañ prix Cheikh Ibrahim international ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa tagg goo xam ne woy Cheikh Ibrahim yi ngay jàng woy Cheikh Ibrahim yi ngay jàng mokkal ko ñi examen la ci comme ni ñu lay examen ci alquran boo gañee ñu jox la piri loolu nag comme tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la dañ ko tànnal weeru gàmm avant weeru gàmm bi ci la def concours bi ba ci biir weeru gàmm gi bu guddi gàmmu jotee ñi nga xam ne ñoo jël pee ñu defal leen teraanga ñoom tamit ci prix Cheikh Ibrahim boobu ñu jël ci wàllu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mokkal def ciy feeñ fu ñu la laaj ci liñ lay examen nga départ dem neex baat tamit daf ciy feeñ wax lu leer tamit daf ciy feeñ pour tagg yi bàyyi tagg yonent sallallahu alayhi wa sallam ni rafetee ku bokk ci concours boobu noonu da nga mën sa bopp ci tagg yooyu noonu ba jubal ko comme ni xalé yi di jongante ni ni ci alquran buñ démé ba prix bobu am ba ñëpp xamné ne yenen euh, euh place yi war nañu amal jongante ci euh, tagg seen sëriñ si tag yoonu sallallahu alayhi wasallam boba tamit ñu xolaat benen prix cheikh ibrahim bo xamanteni dañ koy jëmmal nonu lañuy nekké rek ci prix cheikh ibrahim prix cheikh ibrahim ndax cheikh ibrahim du cheikh ñi ngi sante di gërëm mboolem journaliste ndax tay am ñu ñi sétane mel ni ñi ngi nekk ak ñun te boo bëggoon a dox dem ci ñoom da nga yàgg ci loon bi yoon bi lool boo bëggoon a dugg oto dem ci ñoom da nga yàgg ci ñoom ci yoon bi lool boo jëlee avion jëm ci ñoom mën naa am da daw lu mat douze heures de temps tey ñi ngi ñi seetaan mel ni dañoo dëkk ak ñun loolu journaliste yii nekk ak ñun ci biir dëkk bi ak ñi jugee ci barab yu fasantikoo ci biir Sénégal ak ci Kaolack gàcce ngaalaama ñi ngi yàlla seen béy bii yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na ci Sénégal yëpp jëriñu yi nekk biir Sénégal ak biir Sénégal ñoom ñëpp yàlla nañ ko jëriñoo yàlla na yàlla yëkkati seen kàddu yi yëkkati seen image yi yëkkati seen liggéey bam daj ndax bu duul woon ak yéen nit ñi fi ne li ñuy def mooy oote téléphone ñu leen di wax lii moo xew lii xew mais ñun rek moo leen manqué mais dund nañ digi ñoom ñëpp ak ñun ndax jot nañ ay appel yu bëri jot nañ ay ndokeel yu bëri kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñi ngi ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñoo ŋànk prix Cheikh Ibrahim Alquran Karim lajnal ulia ci Cheikh Mahi di président bi imam Cheikh Ahmed Tidiane Cissé Cheikh Mouhamed al Qurashi Cheikh Mouhamed al Hafiz Nahwi mi nga xam ne idée prix bi ci xalaatam la jógee muy muqaddam bàyyi ci Mauritanie ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla fay leen waaye tamit ñi ngi ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoo saytu woon liggéey bi ji membre jury bi ak ñi amee organisation bi ñoom ñëpp tamit ñi ngi ñaan yàlla yàlla na leen yàlla na yàlla fay leen waaye am na ñu nekk ci prix bi di liggéey te feeñuñ ci benn image feeñuñ ci organisation feeñuñ ci jury feeñuñ ci légional ulia waaye seen guddi ak seen bëccëg ñu ngi koy liggéeyal prix bi ñooñu danañ ci tudd Abdou Salam Thiam mi nga xam ne mi ngi ci communication ci ansaaru diin yàgg naa sonn lool te buñ waxul coonoom kenn du xam li muy daj ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu fay ko barkeel ko barkeel njabootam ñu ngi gërëm suñu mbokk mi jugee Mauritanie ñu koy wax Sidi Mouhamed bin Abdallahi Atiq décoration yi ngeen gis yëpp décor yi loolu la ñuy wax moom moo ko créé fa tabarakallah guddi ak bëccëg ku nekk xam na ne tey bi mu duggee ci salle bi gis na ne édition bii ñu jagleel Seydi Ali Cissé utee na ak édition yi nga xam ne ñoo ko ñoo ko jiitu ci organisation ci fa tabarakallah foo xool rek yaa ngi gis ay images yu rafet lii yëpp nag liggéeyam la moom ak équipe bi nga xam ne moom la àndal ñu ngi ñaan yàlla yàlla fay ko moom tamit jotal ko bëgg-bëggam ak càkkutéefam ñu ngi ñaanal képp koo xam ne dugal na loxoom ci prix bi mu gàtt mu bëri dugal na xalaatam ci prix bi ñu appliqué ko ñi ñàkk koo appliqué ñi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na la leen yàlla fay te ful ko ñiñ oo tamit ñi dog rek ñëw reeruñ mën na am sax juleeguñu gee ñoom ñëpp jëmmal giñ jëmmal prix Cheikh Ibrahim ñu ngi ñaan yàlla yàlla na leen ko yàlla fay te fulal leen ko bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam am nañ lool am nañ kontaante lool kuñ fàtte nanga xam ne du ne suñ tayeef la waaye doomu aadama mooy fattu xel di fattu waaye sant na ñëpp gërëm na ñëpp ñaanal na ñëpp asalaamualeykum aleykum rahmatullahi wa barakatu maa ngi tudd Mouhamed Abdoul Malick ñas di doom ci Cheikh Ibrahim ñas jiite prix Cheikh Ibrahim international pour le récital du Saint Coran